borom nugum nugum kër yow yàgg nga si yoon bi de. dama naan la comment tu vas mais yéen seen fii sori na de. yow nag naqari nga xel de. xanaa nga ne ma toogal sax ma toog. yow li ma wax lépp yow xamoo. instant bi dama tàng sonn fii sori jugal nga may ma ndox. ah yow dinaa de ah ciw. eh bàyyi tooñ nag mooy góor yaa ngi am jongo ma. mais fi ma la daan fekk wuti naa fi ma la fekk tey de. ah fi mu sori na torop. sinon yaa ngi am jàmm bu baax a baax. su ma la gisee damay am jàmm. ah nee loolu am. dama fàttali yàlla su yéen olof. waaw gis nga sama xol. bañ a tudd laa jaaroon. xaw ma woon nii la la jàppee nag tuuti su ma la gisee du ma naan lu bari quoi tuuti laay naan. dafa jógee na kii. wa duuna oh oh oh oh oh, oh, oh, oh. sa toogal bu jekk ma toog dalu ah jarul tekki jarul tekki instant bi moom maa ngi àjjana. waxuma loolu waaw dama lay laaj. lan ma la fekk tey il faut wuute ak fi ma la doon fekk. waaw ah, lan bi. xam nga man li fi nga nekk lu mu sori sori dama lay loqati. ma loolu. jaral nga ma loolu moo tax dama dox tey ba sonn. oh ku man laay mën a xamul mu miin. ah. na ngeen def. Ah, yaa ngi jàmm. Ah, man ah, daay guy tàkk la sa bopp bi ni nga ko def noonu ah. loolu sa problème. ah kay da nga fekk ay nit ñu toog da ngay nuyoo nga toog eh, wax la salaamaaleykum kay wax naa ko salaamaaleykum wax naa ko xanaa fa ngeen tolloon a baax ba mën leen maa dégg waaw ma ay da nga fekk nit ñu toog dama yaay kan nag sa bopp bi mel ne daay guy tàkk laa la man la seexu seexu waaw foo seexoo yow bon loolu sa yoon nekk sama yoon a ngi ci kër jàmbur koon fa fekk danaan laaj foo dëkk ndax xaw ma la fi sa watis ko bon gii eh. ma ne sa watis ko bon gii laa la wax li war nga ko def ci dëkk bu toll Touba li war nga ko def li ñame nga fala fala xewute mom jumaa ja ha ah? li ñame nga ko nuyu sa serigne wa dama ni deul ma mom wa ma wax dama la li ñame nga ko nuyu sa serigne tay bala dara xew da ngay toylu ma wat la toylu toylu man ma toylu nga wat ma toylu nana len sa loxo bu ma laalee mooy kasso bi ma ngi len di xaar dama ni yo xamoo ma est-ce que dama ni bëgguma la xam ni nga mel bëgguma la xam bëgguma la xam c'est des connaissances te et puis yow bul na fontoo yow mën a tàmmali fay liggéey tey dafay fat ay góor waaye waaye kii mbaa du sar saar mi ni wër yow sa carte d'identité were were yor nga ko mais est-ce que wér nga yow waxuma ak yow sëñ bi sa kanam gu ñeme gii aji saar mii yaaya doon massage si ngóor sonko la xoma ba gone talib taalib pono ka sànnante xer ak police yi bo dem yaay aji sar han yow mom dana li jënd say mbir yi ya mom li yow li samay bagage la delal nga jóg nga génn kër nga mayma ma kër gi génnal kër gi te biti te biti wax ko man may kan bëgguma xam yaay kan génnal kër gi rek ok man bëgguma xam yaay kan ni nga mel ok bëgguma la xam wa baax na jërëjëf ma ngi lay xaar je suis paré beaucoup pare naa tout man genn gon laa bawut ak yàlla genn gon lépp ba jàng karaté jotee jàng naa ko lépp léegi sax moo raw karaté dama ne oh maa ngi lay xaar leen ma fekk na soccet lemi tànkam demal te bitti rek man ma fi fépp ah, ah baax na demal demal demal demal yow nag sa kanam gu ñeme gii man ba ma ne laa laa laa laa teyoon seen mbir am naa ci lebet waaye kee moom moo téyut kee moo téyut borom kër ga téyut moom day farax-farax ni ni ko jéggib liggéey nga sa biir yaxam du mën nga sa borom dugub dugub mën nga sa biir mais sàmpal sàmpal borom dugub dugub mën nga sa biir yaxam du borom du mën nga sa borom dugub dugub gën a sóobale. nugum waxuma loolu de toogal mbay. nugum yow nugum. ki fi ñëw ma dajeeg moom mu génn ci kër gi di waaxu waaxu mu tàng mi kii moom dafa doon jël si dara wala da ngeen doon xuloo mbay baal sa naqadret gi dellu fay nit ñi seen bor yi. danaa fiir kee dafa mer de. danaa bëgg. mbëkkuma waaye ni ma ni mu génn ci kër gi ma gis ko xelam wee. baal di joteeg nit. ka kan laa jotee ki ma dajeel mu génn maa gis mu sol ma xam ne waaye fii gis naa magum jëmm la ndax gis naa. magum jëmm dafa tent ba ba maa nga mel lipse bu wat ko laa naroon ngaan ma lan waat baal ko jëndal naan da nga koy andil ay cicatrice dama ko naroon wat Touba gi da fi war def ni bappam bi waaw lu ngeen jote fi ne ba mu génn ci kër gi tàngoor bi may cee mer na de Amina man sa jànq bi waaw foofu nga toog la toog waa ji nu ca kawa maa ngi ko fekk nag mu koy tànnale bi jaaw. Ah. maa ngi ko seen kër gi daa sore di di. mbay dëgg la mu am. Amina ma Amina mi ci la maa la wax li xoolil xaq wala kaana mu ron de lan moo tax lépp lu ma la wax nukum hmm. nga am ci njàngat maanaam doo ko gëm daal doo gëm samay wax. waaw yow nag say wax. yi ngay wax nii lépp dégg naa ko. sa waxi bopp ji rafet na waaye wax ji moo wéru. Ah. man nga wuma ko. man man la engagé maa moom kër gi. waaw jërëjëf Amina doy na ma. waaw jërëjëf dana leer dégg naa nag sa biir wax ngay wax naan ay génn nag naa ay Amina daal li ma la ci mën a dénk mooy. waaw bëgguma nga xool ko ne ko Amina ba ci si waxuma dugg de ba sa bër bi suufa nga ci. baax na suufa nga ci jëm si rek bëgguma koo dégg. jërëjëf baal booy bi mu xàpp. waaw jërëjëf de ba ñu ma ci rek bët bu ñu saanum njar. waaw jërëjëf Amina ah. ca sées ba. Ah. Abdou Diouf ba Macky toog ca sées ba te sées ba sensé wu. Ah. noonu la Amina amee sées ba waaw baax na jërëjëf bàyyil xel Amina. waaw baax na. bu génne day am nag du génn du ma génn xaw ma kuy génn. waaw jërëjëf baax na. yàlla na fi deegi bàyyi. yow moom doo ditul dara jigéen jaral na la lu ne. borom dugub dugub moo nga sa biir. saxam dugub moo nga sa biir borom dugub.